xarsaarukum ma ahlihi ya ahla ngaay fusum bi kawni almustafa xarjaarakum xarsaarakum ma ahlihi ya ahla ngaay yàlla dogal ma bëgg ko lool bëggeel ko sooye sooye sooye sooye lool te doyloo ko nit ni mënee su ta waxtaan ci moom te waxoo ko cosaanam la waral loola. Modou Moustapha bu ngeen fexee ba yóbbu ma Touba li ngeen bëgg lépp am ngeen ko wàcce ngeen maa ci des. ay daan day moo daa tax góor a jël ñaari tànkam dër ko ci suuf te su ma dëree sama benn tànk te ma daan far far ma bu nguuru français gépp dajaloo woon bëgg koo yëngal duñ ca man dara te lii sama ñaari tànk nag laa ci dër. yii dox diggante nit ak ñu ne diggante bi rafet na yëpp dox na seen diggante ndax wolof dana rafetale digganteem ak mbokkam. tudde ko doom bi ko fi bi ko sëñ bi wanee ginnaaw man dama koy jël def ko li ñuy wax badal ci ci ci naxaw nañu waxee woon rek ne day mel ne ku sëpp ab puso ci géej la cay taq ko si ñëw ci ndox par rapport la cay des kenn xamul nu mu toll kon loo wax ci moom lu baax rek la ci des ko ëpp jégewu ko sax kon moo tax jafe wax ci moom jafe wax ci moom itam yomb ndax loo wax ci lu baax mi ci moom ndax Cheikh Ahmadou Moustapha mi ngi gane àdduna rek ci 1888 ci Darou Salaam. sëñ bee leen woo ab jataay ci ak nekkam xamal leen ni leen ni liggéey bi lépp mat na li ci des rek mooy Kaabatullahi ci Touba. Cheikh Moustapha moo fondement juma ji ba mu weesu xaaj mu dem ba ko ëllëg. yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul doon ki nga xam ne moo sos yoonu murit mu doonoon koo xam ne mission bi ko taxoon a ñëw mooy yeesal lislaam ak yëkkati ko naal bu rëy boobu taxoon na sunu borom tegoon ko natt yu rëy jaarale ko ci tubaab yi fi nekkoon waaye loolu yépp nag teewul sëriñ Tuuba sax ci di Abdullahi wa Xadimu Rasul mu tëraloon ay naal yu rëy ci lislaam ak ci yoonu murit yenn ya àgg na ci nekkam ci zaahir ba bi muy wuy ji ci atum 1927 mu dem bàyyil ko fi ay donoom ke njëkk ca donoom yooyu nag di ab xalifaam mooy cheikh Mouhamadul Moustapha kan mooy cheikh Mouhamadul Moustapha fan la ganee àdduna fan la askanoo nan la taxawoo sëriñ bi ci ak nekkam ci yan xalaat ak doxalin la yore woon yoonu murit ginnaaw bi ko sëriñ bi bàyyee ñan la àndaloon ci liggéey bu mag boobu ko sëriñ bi bàyyeel kañ la làqu ak fan la làqu nit ñi mënee su waxtaan ci moom. te waxoo ko cosaan la waral ndax sañu war wax ne loola naqari jinni da ngaa xam ci bokkam waaye nit moom du nuru bokki jàmbur mukk koo gis ci adduna rek ay bokkam lay nuru ca bokk yooyee ca la ko tànnal waajur wu jigéen mu doon jàmbaar yoo xamante ni adduna mën naa roy ci moom ngir ay taxawaayam soxna mi taloo moomu soxna xarima moo yaayam xayma yi maam it aminta yàllaa ko jur aminta yàlla nag saa xewar faat ba ci bay baayam ah aminta yàlla moomoo ak Amadou yàlla ñoo bokk ndey baay waaw aminta yàlla nag moom la joxoon suñ kokki njëkk isa ji moo am fa samba aminta mu jur pend bu ndey sa yoon mbakki gelaw la teg ci xari maam ñoo bokk ndey baay mu jur aminta loolu lañ sëñ Moussa bu mu bokk boo xam ne nii làmb na maanaam mboolem xëy di baax yëpp ndax ci tënk rek ak leeral Cheikh Modou Moustapha soxna Aminta mi nga xamee ne mooy wajuram soxna Aminta Lo tafsir Maxtaar Binta Lo mooy wajuram tafsir Maxtaar Binta moom it ku ñu wax Binta Fall di wajuram Binta Fall moom yi ànd sekk xujja kumba mooy waajuram nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha ci wàllu ndeyam ñaari maam yëpp bokk. <laughs> soxna ma jàng fa loolu la jëkk a jaar. am fa Ahmadou Mokhtar jàng ma def taawam moom lañ tuddee Ahmadou Mokhtar muy toog te ba xëy toppatoo ko la bokk moom Samba Gaddang bàyyi sëñ Mor Dianda euh, ma bàyyi sëñ Matar sëñ Matar ma ma bàyyi sëñ Mor ñoo ñoo ko toppatoo ba andi ko Darou Salaam. al muridatu sadiqatu soxna Aminata Lo liggéeyal sëriñ bi ba mu gërëm ko doy na sëkk ci liggéeyam bu tedd bu sell ba ak ab cëram ci sëriñ bi ñaan ga mu ñaan sëriñ bi ne ko. may ma ma dem wuutu la nga àggale sab liggéey kon ku yàlla man a fab wuutale ko sëriñ bi rek ak nu mu mën a demee rek am nga cër ci yàlla. waajuram bu tedd wa sacrifice ba mu defoon ba leen sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Khadim moo ko soxna Awa Bousso ak soxna moom te booba Cheikh Mouhamadou Fadal feeñ na Cheikh Mouhamadou Moustapha feeñ sëñ Baara feeñ lay leen sëñ Tuubaa waxoon ci tënk rek lii dégg ngeen ko ba tey waaye ci tënk rek eh, moom da ca wax ne am na lu soxna bu Bousso wax waaye moom dafa wax ne maay dem ndax yow Cheikh Al kenn xalaatu la da ngay liggéey te sa liggéey noppeegut ndax a Cheikh Ahmadou Moustapha mi nga ne àdduna rek ci 1888 eh, ci Daaru Salaam ndax gane gane àddunaam dafa dëppoog sëriñ bi am lu rëy loo xam ne doon na ko wut di ko wër bu yàgg te dafa mel ne ak gane àdduna ci la yàlla defee taw feexi sëriñ bi mu gis barab boobee muy Touba. ginnaaw gane àdduna ga ci bokk yu seetlu yoo xamante ne ni moom ca la bàyyi ko di njaboot goo xamante ni daf leen tànn ndax kenn ku ne xam na sëriñ bi xam itam ni ko loolu ñore ba tax na. lam doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da koo dal ci ak njabootam ne xaat ustufe min xiyaarin ma ata ahadun minhum bi ma yuxjirul axyaara wal uzama muy tànneef yoo xamante ne nii kenn koo ci mën a duut baaraam ci ngor wala diine ju manki ju am bi mu tollee ci jàng Serigne Touba ko dalaan jàng moo ko rakkam Cheikh Mahamadul Fadil ginnaaw bi sëriñ Daam Abdourahman Lo moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal mu jàng xam-xam ci ay baayam ku ci mel ni boroom daaru demoon na it gànnaar ci jamono yi fi sëriñ bi nekkee jàngaat fa lu bari ci xam-xam yu wuute. ba nu ma tee daal kenn waxu na waaye sëñ bi moom suba dibiir rek suba suba àll jubbu nu maa sëñ Badou Moussa sëñ Fall nu ñett loolu la suñu war dimbi ko gi ci kër sëñ sooy bu ak suba lañ fa xëy suba teel mu ne damaa bëgg ngeen jublu ci li seenub liggéey yéen alxuraan laa leen defal mooy seenub liggéey da ngeen ko nangoo nee na nu xoolante na ne ko waaw mën bu ngeen ko nangoo lu ngeen bëgg danaa leen ko defal tey jii ak bu bi moo ko dalal jàng fii ci kër sëñ bu ñu tuddee ko daaru rahman mag ñi daan ko wooye daaru naar foofii la dale mook mbokkam mu baax ma cheikh mouhamad al fadal ak sëñ omar galongal ñetti alooy xajar la daal di yëkkati teg ci suñu lépp àgg leen suuf nu moo ne noonu miim nu waxee ko noonu ba muy yetti yoon mu ne leen ci xalaat dara bu leen ci tiit dara gaaw gee xamal bañ gee fàtte nekkul ci yéen ci man la ne te tanaa ko ci yéen ngeen sëñ Tuubaa nu jàngal ban ci làmmiñu boppam ba sóoratu Yaasin loolu sëñ Tuubaa nu ko jàngal loolu di ko tàlli loo leen doon jàngalal boppam ba bi muy dem Mbàkke Bari moo leen yor di leen saytu wax nañ ñi sax ni bi ñuy dem àgg nañ ci sóoratu Yaasin demee Mbàkke Bari ci Jolof nattu bi agsi mu war a génn mu dénk leen mbokkam ma di maam Cerno Birahim mu taxawu leen àggale seen àllu ba yar leen ba muy bëgg a dem nag la woo maam Cerno ba ñu ne ko mi daal ma ko joxal Abdourahmane gone yii nag daañu ko fekk damay ànd ak ñoom dem fii may bëgg dem ci yéenti weer képp laay fam loolu la waxe te loolu la suñ nekk lii nit ñaa ngi wax sax ci juróomi weer rek loolu la ñu wax waaye yéenti weer la ñoom wax laa laa gëm man loolu laa dund suñ fa lu wax loolu ci lam mi ñoom sañoon wax loolu kon dafay mel ni rek ci fukki atam fekk na mu wattu alxuraan ba bind ko mbind mu sell sëñ Fallou daf daan wax ni ki ma joxe kum joxewul te joxul ak kim ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xamut loolu nag daf daan faral di wax ni itam ni suñ bàyyi ci na moo nu jàngal ban ni ar mu yar ni ban ni nër kon moo leen doon tarbiya moo leen doon jàngal di leen yar yar ñu itam ni ko sëriñ bi yare woon rek noonu la doon yare njàngum xam-xam it ci tënk rek mi ngi ko jàngee ci diggante maam Thierno ak sëñ Mor Diarra ba sëriñ bi ñëw ci géej gi dem gànnaar maam Thierno dem gànnaar yóbbaale ko mu ànd ak ma Madi Wisil la te booba gànnaar dañuy métti métti métti métti dégg naa ko ci mag mu wóor mu ne booba gànnaar naqari na lool waaye sama soo bi gisee sëriñ bi rek la am cofeel gu rëy ci moom ba sàkku sax nga xam ne mu sàkku ci des fa wax nañ ne itam bi nga xamee ne sëriñ bi ñëw na ñibbisi na te dem gànnaar dañ fa ànd ak maam Thierno maam Thierno da leen fa yóbbu am na ñu wax ne ba ñu fa nekkee ab diir ba war a ñibb te fekk na boobu sëriñ bi itam sàkku xam-xam rek moo taxoon ñu dem fa ndax sëriñ bi xam na ne barab booba barab la boo xam ne ay boroom xam-xam dajane fa te ñëpp a ngi wal di ñëw ci moom boroom xam-xam yooyu kon jataay booba su ñu fa nekkee ku fa rot tey boroom xam-xam rek dana dana danañ mën a jaxasoog moom ba la ñu soxlaa tàng ca xeeti xam-xam yu wuute ca jamono yooyu ñu mën ko tàng. moo tax boo demee ci sëriñ Moussa Ka mi ngi wax ni Bàmbaa nga leen tarbiya fii saara ak i jarraariya ni waa saara foofu ci gànnaar na fa mag ñu nekkee woon rek noonu lañ fa nekke gànnaar itam doon dëkk bu jafe nekk ca jamono jooja ngir manqué ndox ga ngir tàngoor wa ak désert bi ndax xiif bi fa nekk waaye teewut ñoom ñu nekk fa ak sëñ bi foofu ci gànnaar dañoo boole liggéey ak jàng ndax wax nañ ne am na fa ab tokkoor boo xamante ni nii sëriñ bi daf leen waxoon ni leen dama bëgg ngeen di ci xëy di ci yëngutu ndax bëgguma ngeen ñëw fii ci gànnaar ci désert bi ak tumuranke gu metti gi ba ñibbiwaat senegal yam ak ña ngeen fa bàyyi woon waaye mu defal leen ca lu kiimaane ni leen defal naa leen ci benn bis bu ngeen ci xëy dana mel ni ay bis ci yéen loolu loolu ak jagle la Sëñ Tuubaa boole leen fi ñeen fukki kéemil yoo xam ne da koy wañu muy ñeen fukki kéemil takk kaamil ba nag da koy yëkkati teg seen loxo sëñ Modou Moustapha sëñ Fallu sëñ Massamba sëñ wax ne leen kaamil yi yéene seet nu ngeen ko nu ngeen koy bindee na ngeen tooloo la nag mu ngi ci bind ba àgg ngeen dund te timis bu ñu jullee timis bu ñu sëlmalee dikk leen wusi ma bu ñu dikkee bar ci loxoy baraay la leen di jox bu ëllëgee mu ñëw mu jox leen bar ci loxoy peppum suuna bu ëllëgee mu ñëw mu jox leen bar ci loxoy daakaane ne leen lu ko na mën naa am waaye du ko fii ba mag dinañ ci fagul ëpp na mu xel ba ñeen fukki tamit yooyu àgget lam leen ci wax du waxee rajo foofe la ñuy tëg bi ba yàlla dogal ñu euh, samp kër foofe lañ leen ko defal fa defal 1909 ñu soog a ànd nag dikk njëreem 10 11 12 13 mu ne leen nag dikk leen wuti ay àll yu bañ a sori Tuubaa tey liggéey bu wér di jaamu yàlla yéen a gor yi fa nekkal tey ànd di siyaare si ñoo moom a ànd ñëw ci jolof ci yéen jolof itam tërbiya ga lañ ci continuer ndax booba fekk na njàng ma fa tabaarakallaa la ci sëñ bi bëggoon suñ borom defal na ko ci ñu nekk foofa di di di liggéey ci li sëñ bi gën a bëgg muy bind alxuraan ak yeneen liggéey yoo xamante ne ni liggéey yu doole la benn boo xamante ni daañu ci ñiiblu wala nit ñi di ko def ñu toog di seetaan ndoobu amut sëñ Modou ci boppam wax na ni gori naa gori naa gayet takk naa néeg fetañ na bayi ca tool ya loolu lépp ay taxawaay la dem na ba bu nekkee ci biir taalibe yi doo ko xàmme ndax sëqal gi mu sëqal bopp bi njañ li ak col gi doo xàmme ni kii coomi sëriñ bi la wax nañu sax sëriñ bi woo na ko benn bis laaj ko ni ko waaw lii nga def loo ci jublu mu ne ko bëgg gën a niru ab taalibe mëni su ko woon a xàmmee ak taalibe yi ba mu joon sax mu yor melaw taalibe wu ëpp ba bopp bi di sëq ba ma warloon ñam ñu koy tudde njañ ba sëriñ bi woo ko bis gis melawoo wi ne ko Mouhamadul Moustapha lii de am na ñu koy def waaye yow dafa am lu ma la tànnal mooy ngay jaamu yàlla ci sunna si yonent bi nga doon nitu sunna laataan na ci yow. ku sa fondement dëgëre noonu sa base dëgëre noonu nga jaar fa nga war a jaar ci alxuraan ja xam-xam ba tarbiya ba tarqiya tasfiya ba ci sëriñ bi sëñ daam Abdourahmane maam Thierno maam Mamor Diarra ak gànnaar ga ci sëriñ Touba ndax moom si xam nga dañu ko woon gànnaar sar sara daj fa lu doy waar ñu nga woon Ceyeen sonn fa lool so so bokk feeñu doon Daaru Salaam kon jaar na fi war a jaar fépp. sa wàllam daa wax naan. sama gémmiñ ci sëriñ bi mooy jur gi mu jur waaye day mel ni jur gi maanaam sëriñ bi dañ ko doon koy jëram it li ko ñëpp di defal la ko defal kon day mel ni ak xeer la rek ak it waxi mubaalaxa nga xam ne day jotal rek waaye eh, eh, Cheikh Moustapha ak njureelam googu sëriñ bi jur yàqalu ko dara ci li mu war a liggéeyal. Sëñ Fallu nee moo leen wax ne leen. amut doom amutub jarbaat amut rakk nee na nag moom Sëriñ Fallu bi mu ñëwee njaareem dafa bind askayit jox Sëriñ Tuubaa muy bay di siiw yooyu waaye nag euh, léeg-léeg ci lu bari loolu xam-xam nangu ko euh, mooy ginnaaw ñoom la ko waxandoo euh, ka bind ñëpp la jëlaleel engagement ndax sëñ bu mag bi bi muy tontu daf ne waaleykum waaleykum salaam yasurrukum wa yanfaakum wala yadurrukum abada loolu ku ne dugg na si biir noonu daal lañ ànde woon di bokk di bindandoo ay kaamil dëgg la nag jamono neexutoon bañ mën a bañ bokk fenn fu ñu nekkoon lépp waaye diggante yëpp taxutoon benn yoon umpante dox seen diggante gànnaar ak jolof lu ci nekk ay étape la yoo xam ne maanaam étape yi sëriñ bi jaar ci dundam nga xam ne bu ñu doon séddale ñi nekk ci ñi toppoon sëriñ bi ci ay murit dañuy wax ni ñi ñi nekkoon jolof wala ñi jiitu géej gi wala catégorie yooyu kon moom bi bi nekk Mauritanie ma nga bi nekk jolof mi ngi fi bi muy ñëw njaareem mu ànd moom ñëw kon kooku tër bi yow sëriñ bi daan ko digal li muy digal Euh, taalibe yi di ko tere li muy tere taalibe yi noonu ko sëñ Abdou Lahad wax ne mboolem ko sëñ bi jur ñëw nga jaay njureel gi doonub taalibe mu di la digal li muy digal taalibe kon noonee ni la defoon muy sëñ Moussa bu ko sëñ Tuubaa jurut woon it cër bu fi waay di am dana ko am ndax daf ko liggéey daa teel a dal ci tool bi te teel a dégg sëñ bi te amu fit am jom nangoo liggéey loolu may na ko lu bare bare ndax moom ci boppam da daan wax ni lépp lu fi way liggéey ba ba seex ba nga koy liggéey maag ko ànd ma ëppalee la nag njuréel gi loolu dana dana firndéw daal ni nañ dem ci curi ba mooy fañ daan yeew fas yi ñuy jox sëñ bi ni fas bu fa waay indi indi na fu ko gën ñu nañ dem ci néeg ya néeg bu ko waay takkal takkal naa ko néeg bu ko gën nañ dem ca sàq ya sàq mu fa indi indi naa fu mu ko ëpp nañ dem ca kaamil ya kenn dàqu ma bind kenn gënu maa rafet te kenn ëpp ma kaamil yoo bind loola nag moo doon wan kon doon na liggéey li nga xamante ni ni noonu la ñëpp doon liggéey njureel ga door caa dolli ko ba fer ba mat waay ku koy la dina seet bis ma ban ba wuy Cheikh Mouhamadul Moustapha mu doonoon taalibeeb Serigne Touba boo xam ne kooku gëmoon la lool jaayante woon ak moom jaayoon it ak njureelam jëndee ko taalibe mosula wuuteeg moom ci dara sëriñ bi it bàyyi woon ko xel lool joxoon ko cër lool ba ni mu doonee boroom Touba. keroog ba mu wutoo Xaadimu Rasuul ci yoon wi ci la dalal xel yu bari ngir na mu jëfe ci la ko sëriñ bi dénkoon mu fexe ba yóbbu sëriñ Touba ci dëkkam bi nga xam ne mooy li ko gënal ci kaw suuf te xat damul waaye loolu lépp nag wakiirlu gu mu ci yàlla ak wóolu mu amoon ci ne sëriñ Touba bu digle mukk luñ dul tax na ma am ca ndam lu rëy mu jiital ko ci baatin lu mu dol luy sulaab huwal waarisu ginnaaw boo xamante ne nii sëriñ bi jóge na Ceyeen Jolof jëm si njaareem itam dañoo ànd ak moom ñëw njaareem nekk fa ak ñoom laata loolu itam fekk na sëriñ bi waxoon maam Thierno ne ko na yóbbu njaboot ki Touba foofaay kër ga fa laa jëm si waaye bu seen kër yi taqaloo dañu dàndante loolu lépp itam doon ay taxawaay rekk ak ay junj yoo xamante ne ni sëriñ bi jubluwaay ma ginnaaw boo xamante ni sëriñ bi ñëw na njaareem it ñu ñëw fa nekk mu yabal leen Touba mu leen yabalee tuuba ab diir sëñ bi ne dama bëgg ngeen génn dëkk ba wuti ay kër ca lu soriwul dëkk ba sama jumaa joojee ma fay def bu pare ngeen di fa jóge di julli si sëñ Modou Moussa Anafa ah, sëñ Falil mii ni bëkk démb doon na doxantu ba àgg ci ak pël gu ñëwoon dindi waxtaan naa ñoom nañ ko fa loole ko ci loolu yi yi itam te bu leen sori Tuubaa tey kenn ku ci mu ñëw sanc dëkk bi nga xam ne mooy xusnu maab di tundoo di mook Cheikh Mahamadul Fadil ak sëriñ Masamba ak sëriñ ma roqoy Buso sëriñ Masamba sanc Daaru Karim sëriñ Fallu sanc Ndindi sëriñ ma bu Buso sañc euh, Daaru Xadim loolu lépp rek euh, sëriñ bi defu ko rek ngir joxoñ ko ngir won ko ne ko gannaaw bu ko wanee ne da war a dëkk Touba fu ma jege muy Touba dëkkub sëñ be mu dëkkloo ko xusnu maab waaye itam këram gi ci njaarim fi sëriñ bi nekkoon résidence surveillée bi ñu ko fa indee ci kër gu mag mu jox ko ndigal mu dëkk ci wetam. yooyu doon ay barab yoo xamante ne ni dañ fay liggéey di yot sëriñ bi di fa jaamu yàlla di fa tarbiye itam fere yi nga xamante ne ni ñoom lañ leen booleel ngir ñu war leen a taxaw loola di itam aw jàngalin woon war a fàttali ci yokk yoon wi ak doxal ko ndax ñoom bokk na ci yàqli yoon wi dëkk yooyu ñuy sanc ak nit ñoo ñi nga xamante ni ñu ngi leen di taxaw bañ mën a jaamu yàlla mën a liggéey lu sàmm seen ngor sàmm seen diine ci la ñuy dem di dem di siyaare di liggéey di liggéey li ñuy def ba sëñ gaawaan ah, mi toll nii mu toll xëy sañ dëkk bu ñuy wax ñaaxeen genn wàll gépp jublu ci moom lu dul jeex moo sëñ Mourou Moussa ba ñëw mën ko gërëm naa maa ngi dimbale sëñ Bamba ci gërëm li mu la gërëm sëñ Touba sax kenn ko kenn du ko dimbale ñun ñëpp lu yor moo la ko jox waaye dama koy santewaat lii ci yow mii di sunu taw te mel na nga wér jox naa la ñaaxee waaw. Cheikh Mouhamadul Moustapha wéyal nag sàncum dëkk yi loolu lépp indil ko ak xir rek ci liggéeyal sëñ Touba muy sànci. ay dëkk lu mel ne Nayde de mel ne Polle lu mel ne Jëmweli lu mel ne Touba Kayel yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ni ci nekkuk sëriñ bi la ko sanc ba xabaan yooyu yëpp ay dëkk la yoo xamante ne ni lépp lum fa mos a amee jox na ko sëriñ Touba mboolem ñoom fa àndaloon di liggéey itam amu ci benn ci liggéey boo xamante ne ni mooy na sëriñ bi waaye sëriñ bi nee na sëriñ Tuubaa bu delloo dikkee na ca Modou Moustapha amee ma lay la ci sëñ Amsatu Jaxate wax nee na keroog ba nga xëyee sëñ Modou Moustapha ñëw na fii woolu ma ma dikk mu ne ma dama laa bëgg a yónni ci sëriñ Tuubaa kat te nooy ànd moom dikk na ko am na gan guñ naan ma nga ca buntu ma di la nuyu tey siyaare tey fedd lig taalibe te gëdd yeesal pëstéefam ak kóoluteem mburu mii nag moo koy joxe nee na nag mu ngi sàkku ngërëmal sunu borom si yow sëñ bi ne ko moom moo du num sant mu ne ko ah foofu kat la yam ak man mu ne ko fu mu bàyyi ko mu ah, ah, ah, mu dugal mu mu sëñ bi ne ko ah baax na baax na tam ma ko demal daalaalal ma ko fi barab barab sàngam demal wubbi ko yóbbul ma nee dem dem nee seen koy ma tabax itam daf mën a am sotu man ko Mbàkke mën a foofu yi ma la yónni boo demee ba ñëw boo ma fi jiitoo néeg ma fi boo la fi jiitoo néeg ma mooy lettre boobu mu bindoon tey wax ci biir naa ko jaaxaltu fii yaddil xaamil maa fii suuratil xadr ngir war ma ji mu am diggam ak sëriñ bi ak nëbb gi mi nëbb li mu joxe moo tax mu ne ko def naa ci lim buy tolloog la ci suuratul xadr alfu jooje rek la ci la ci jublu mu ne dem nga ma ñëw ma ne waaw anam ma ne ko ma ne ko sotti mu ne ana mburu ma nga doon wax ma ne ko mi ngi nii si ngi si mu ne sotti ko ma sotti ko ma ne ma ñu ko wax mu toll ñu ko a alfun la mu ne alfun mu ne waaw kay hmm. ñeem fam xalima nga teg hmm. la ndax yàlla la am sa doxam nga doxam ne ndax yàlla ko dee mu ne ko kii am si géej gi waxtu wu ne mu ñëw ko man dama bëggoon rek nga dimbali ma yan bi nga yan ma ko attan naa ko te ca la yi tam sëñ bi bindal ko ca suuf di ko wax yoolu addiya di ko ca wax la addiya di di jariñ loola jëfi sëñ Moussa tax secret boobu génn noonu la nekkee ak sëriñ bi ba ci atum wam sa sin sëriñ bi daaj lu gaal teg ko ci pénc mi daal di wax ne wërsëg yi fi ñëw gannaaw at mi keneen la ñeel ku man loolu itam ab joxoñ la woon boo xam ne booba nit ñi xamuñu li sëriñ bi wax. sëriñ bi waxoon ko itam ni ko nag buñ demee ba tam xarit wi taxaw foo ne soxla naa la. dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ca tam xarit wa ba xëyee ca suba yéen bu mag bi nga xam ne ci lay toog ak magi talibe yi nga xam ne ndekki li fa lañ koy indi nee na fa toog di waxtaan ak ñoom am yàgg mu ni tekk waxatula ak kenn ab diir ginnaaw bi mu jéggat piliyaan bi. jog dem ca tokkóor ba taxaw fa sëñ Mor jàndam bàyyi maam soxna loo Jóob mi jur sëñ Mbàkke soxna loo moo ko fekk foofa mu taxaw mais eh, sëñ Modou wax ne ko Mor mu ne ko Mbàkke mu ni ko man de damaa jaaxle mu ne ko ah, mu ne am lu wax man foofu yii ma toogoon te lépp lu moom musa wax dëgg la nee na bu ma amee ñeent fukki at deetuma am kilifa te sëriñ baa ngi fi loolu daal jaaxal na sëñ Mor ni ko ah, loolu de doy nag jaaxle nee na ñu ànd wëlbatiku del siwaat toog ci jataay bi euh, kon sëriñ bi ni mu meloon ci xol yi ni mu meloon ci xel yi fi mu àggoon ci pas-pas yi mëntu na ñàkka waajal nit ku amuk dal kuy jëfe am xelam ku am sago koo xam ne waxtu fi jógee li sëriñ bi bëgg li sëriñ bi bëgg ci Eh, nuñ ko war a taxawoo kooko daana am sago ak xam-xam ak diisoo gumu mu mën a taxawoo sëriñ bi ci gën jaarafeti anam sëñ du jóge foofa ñëw njaareem eh, bi muy jóge ak si njaareem booba tisbaar weesu na te takkusaan jotagut bi ñëwee itam ci kërug boppam googi la dal muy kër goog yi ci wetu gànnaaru kër sëñ Tuubaa gi foofu la dal mag ñi yëg ni ñëw na ñu commencé ñëw di ko nuyu ak di maslaa ak moom sëñ Maxtaar si la bëkk nekk ñëw na fa wax ko ni ko sëriñ bi moom mat naa nemmi ko ndax li mu def gëj na koo def fan yi daal kenn xamut ci moom dara. ci la toog nag ba euh, gannaaw gee mu ànd ak sëriñ Maxtaar Silla ak sëriñ euh, euh, Mët Lamine Diop Dagana ñëw nag ci kër gi kër gu mag gi. tàbbee ci biir biir kër ga laaj kees gi sëriñ bi ne ku yor doom ba ñu wax ko ni ko sëñ Cheikh Fatak moo ko yor. mu mu mu mu woolu ko mu ñëwee itam teggin yi ak yar gi ak taalibe bi tax na nanguut a jiitu sëñ Mat Lamin Jóob sëñ bi da ko mayoon ne ko may naa la fu ma ne nga fekk ma fa moo tax sëñ Moodu ni sëñ Mat Lamin doxal sëñ Mat nuyoo kenn fayu ko mu nuyoo kenn fayu ko ñetti yoon kenn fayu ko moom itam foofa la ci ab yam yamam toll am na loo xamante ne ni dooma ko sañ ci waajuram moom it mu dellu gannaaw ni sëñ Moodu kon bismillah buntu dénk bi nga xam ne moo nekkoon ci euh, case bi mu wàcceb liggéey dafa tawoon ca talaata ja taw boobu nag moo tax bunt bi xaw a naw maanaam xam nga euh, dénk bu fekkee ne dafa taw day xaw a forcé loolu moo forcé woon bunt bi ñu jàpp ne dañ ko te fekk ne tëjuwut bu ñu poussé la ñu gis ne bunt bi tëjuwut waaye taw bi moo taxoon mu xaw a mu xaw a forcé bu ñëwee daa xool sëriñ bi xam ne li yàlla waxoon def na ko an na kaati si nunu fi laa yamuutu abadan wa anna al mawta kaana mutawajjihan ilayhi fi qawlihi taala kullu nafsin saa'iqatul mawti kii ba xool sëriñ bi teg ci wetam da koo jël jàng ko rek def ci posam loolu day mel na ne kon yu bare bare ja daal di delloo bunt bi dal di wax ci nettali sëñ Cafa Tàkko ne ndax sëriñ Basiroo ngi fi ndax sëriñ Basiroo ngi fi nee na ñu ne ko waaw daana génn dawaay mu ngi fi mu daal ne nañ ko wooyi ci lañ ko wooyee ak tàndax yu mi nga xam ne daa bokkoon ci ñi nga xam ne sëriñ bi daa wax ne na bokk ci ñi may toppatoo ci la ñu wooyu sëñ Basiru wooyu tàndax yu sëriñ bi itam eh, daal di ànd ak sëriñ Balla Coro daal di dem kër commandant ngir wax ko ko dañ demee dañoo fekk commandant bi wàcc këram lañ ko fekk oto bi ñu duggoon sëñ Balla doon dawal ñoom ñaar rek ci nekk ñu demee wax ak commandant bi xamal ne ko sëñ bi daa génn àdduna léegi commandant bi faw mu ñëw ndax ñoom itam fi ñu jaar ak sëñ bi mënuñoo gëm rek ñun leen génn àdduna ñu gëm ko ndax fi ñu moom déerëb liñ ko téye te waxtu ci nekk faat bakkanam dong lañ bëggoon loolu def nañ ko ko sottiwul mënuñoo gëm rek ñun leen génn àdduna gëm ko. Euh, bi nga xamee ne ànd naa commandant bi ba ci buntu sow bi fale sëriñ Modou taxaw wax sëñ Balla ne ko nañ wëri wul bi buntu sow bi. ñu wari ubbi bunt bi fa la commande naa duggee ñëw ba fii sëriñ bi nekk sëñ Mourou xamal ne kon sëriñ bi di def fee bàyyi ko te itam daa waxoon ne këram daa bëgg ñu yóbbu ko ci këram gi ci Touba. ginnaaw bu ñu constaté ba xam ni kii génn na àdduna ndax dañuy certificat de décès bi bi ñu def ci lañ télégramme gouverneur général xamal ni ko sëñ bi néew na ndax commandant bi dañ ne ko danaa ko wax sama kilifa waaye la ma koy wax yaa ma koy wax mooy bëgg boo ëllëgee boo gisaatee sëñ bi ci yeneen situation mu man ni doomam moo ko wax ndax ñoom. xamoon xamoon nañ ko te jàpp woon ni xëy na loola lu lu koy gaar la ndax fi ñu jaar ak moom. loolu la yónni sëñ Cheikh Fatou Tacko te moo ko nettali ci sëñ ci eh, maanaam sëfo eh, maanaam sëñ Balla Coro sëfoor bu mu amoon ñu di ko wax dut seen moom la eh, oto benn oto bu ñuy wax dalaay sëñ Balla Coro moom ko moom la sëñ Cheikh Fatou Tacko abbi. sëñ Basiru yónnee ñu wooy Mouhamadan Tandaqe Mouhamadan Tandaximo ak Cheikh Xarija ak sëñ Mat Lamin Diop Dagana ñoo waajal sëñ bi wàccaayam mu mujj ñoom ñoo ñoo ko waajal ñii ñoo indi sëriñ bi yu Touba. fekk it mu xamoon ne sëriñ bi euh, li mu bëggoon rek mooy li ko dese ci ab liggéeyam te mënulu ko boppam mooy bu wàccee liggéey ñu indi ko Touba loola nag moo tax matuwaay yooyu mu jël yitte jëm ci def ba indi tu sëriñ bi Touba te xat demut. foofu rek mboolem mag ñi fi lañ xamee matuk si Amadou Moustapha akum xelam ak akum ñoram akum dëgëram ndax ku tal ne sëriñ bi te boobu si Amadou Moustapha mi ngi ci ñeent fi at dox ba yam ci rek xam ne kat li yàlla waxoon ci ne ku dul na sin saa yoxatil mawti ci liñ ci liñ mën a xam rek maanaam gis nañ ko ci sëriñ bi foofu day mel ne ku mu doonoon rek ak jaxasoo war na jeew waaye Cheikh Moussa mel ne dara xiwut mag bi ma ko wax ko ko xam xam gu leer la. waaye la ci yéeme mooy nam ko nam ko ko géré te boobu Cheikh Amadou Fall mi topp ci moom ci ma nga ma kilifa yi daan fi nekkoon waaye transition boobu ni ko géré. te te te bruit amul yëngu amul ba noppi demul Touba moom xam ngeen ko xamee ci histoire bi dafa désigné ku ne fekk na sëñ bi bindu kayit mais moo appliqué di sëñ bi bind ne diw def nangam diw def nangam diw def nangam moom mu toog fa assuré intérim bi te dara xewagul nga xam waa kër gi yëpp yëguñ yëguñu ne dara xew na ba ñu dem ci Touba bu yóbbu ko ba def ko ñu def ba dellu si ñu door a yëg lu xew. kon la ko sëriñ bi waxoon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexee ba yóbbu ma Touba li ngeen bëgg lépp am ngeen ko wàcc ngeen maa ci des. bu ngeen ko deful nag du ma wàññi dara waaye yéen lay wàññi kon nag moom lam digge woon ak sëriñ bi matal na ko def na ko. sëñ Blaat daana wax ni mos naa laaj sëñ Moussa ni ko keroog boobu nga jógee ñaaxeen ñëw fekk sëñ Tuubaa ci melokaan woowu mu mel keroog laa bëgg nga wax ma noo def te bu ma tontu ci am ci ci bàttin nag am xel rek la bëgg nga wax sëñ mu ni ko Abdoulaat keroog pas-pas rek la la laa laxasaayoo ni ko keroog li ma yor ci pas-pas ki jàpp ni moo raw ci yoon wi ak siwuma ci wax loolu pas-pasu rek moo ko ci moo ko ci mën a génne ndax jëmm ju mel ni Sëñ Tuubaa ak ni mu feese jamono boo ñëwee gis ni suñ borom dikk naa ko dogalam lool lu ne mën naa xew. moo tax bi fi sëñ bu mag bi jógee adduna lëndam lool ñëpp jaaxle ci ni ñuy def ndax am na ñooñ dañ ne woon jant bu sëñ bu mag bi nekkatut defatuñ fa dara ñenn ñi ñaanoon nañ jiitu sëriñ bi mën sañ ko tudd ay tur. ñenn ñi it ñoom dañoo wax ne fu sëriñ bi yem fa la ñuy yem ndax seenu xër waaye bi sëñ bu mag bi ñëwee Touba bañ delluwaat njaareem ba teg ci ay fan yu néew ci lañ xam ne sëriñ Touba doonul ko gannaawam di naax saay gannaaw sëñ Modou Moustapha mi ngi fi. keroog naa ma ko fal xutbu muy xalifa mu jiital. ko ci baatin lu mu dol luy sulaam huwal waarisu xaqan abaw taajaab huwal xawsu xanaa lil murid yaajaab huwal waarisu xaqan abaw taajaab huwal xawsu xanaa lil murid yaajaab fajal xaajoy fajaajo yaa ko lamboob te footal nu mafaasit mu des ay ndénkaan yoo xamante ni sëriñ bi daf ko dénkoon la ci jiitu mooy jumaa kenn ku ne xam na ni sëriñ bi bi koy digle jamono boobu mi ngi fi sëriñ bee leen woo ab jataay ci ak nekkam xamal leen ni leen ni liggéey bi lépp mat na li ci des rek mooy kaabatullahi ci Touba. juróom la woo maam Thierno sëñ Massamba Cheikh Modou Moustapha sëñ Fall sëñ Balla Thioro Cerno boo demee na nga doon kii liggéey ba Masamba ak Mouhamadou Fadel nañ dem ca ca ca doj ya Mouhamadou Moustapha mi ak Balla nañ doon say ndaw ci lépp loolu jënd fi <laughs> sëriñ bi noonu la ko tërale woon ndax sëriñ bi suñ borom da koo diggoon ñaari jumaa moom la Moussa di Moussa di wax ne sëriñ bi suñ borom te koo waxoon ca Gabon ne ko danga tabax ñaari jumaa ci réew ma ñaari jumaa yi nag jenn ji mooy jumaay Njaareem jenn ji mooy jumaay Touba sëriñ bi it ci jamonoom la bind woon ab leetar ngir ñaan autorisation ba ñu may ko ko biñ ko ko may itam ci jamono yooyu la doxewoon ndigal ci la sëñ Mourou Moussa doon dafa tourné ba sëñ bi laaj ñaar fukk ak juróom-ñett murit bu ne ci la sëñ Mourou Moussa dafa tourné ba ak ñaaxeen sëñ bi wàccub liggéey mu ñëw njaareem indi ko Touba. bind la woon ab autorisation demande autorisation boo xam sëñ Mbàkke bu saa ko bind sëñ bi signé ci suuf ngir ñaan tàmbali liggéey boobu yi tubaab yi waxak moom ci condition yoo xamante ne ni ci lañ jàpp ni jumaa ji ci leen mën a dérouler ba mën a taxaw ba dajale loo ko ab xaalis boo xamante ne ni àggoon na ci cinq millions ba versé woon ko ci compte banque occidentale Afrique waaw noonu la BAO loolu xaalis bi ndax sëñ bi ñu ngi wax ni ñu ngi ko may autorisation bi ci le 30 avril 1926 xaalis bu banque bi ñu ubbi conte ga ci le 30 août 1926 ñu tàmbali tàmbali liggéey bi liggéey ba fukki weer lañ ci liggéey ci ñaar fukki fan ci weeru safar la maam Thierno ñëw fii tàmbali liggéey ba sëñ Mbàkke bu Sakku xiblaal ñu ngi xiblaaloon jumaa ji ci jullikaayub ayit bi nekk jëm barabu sëñ Issa Diène foofu lañ ko tàmbale woon fukki weer rek lañ ci liggéey. la ko sëriñ bi waxoon ne ko Modou Moustapha bu ngeen fexee ba yóbbu ma Touba li ngeen bëgg lépp am ngeen ko wàcce ngeen maa ci des bu ngeen ko deful nag du ma wàññi dara waaye yéen lay wàññi kon nag moom lam digge woon ak sëriñ bi matal na ko def na ko bi loolu amee nag mu xam ne aw na sas sas yu mooy jumaa ji ak condition yi fi fekk dëkk bi ndox muñ naan rek amu fi aw yoon amu fi dara amu fi ñu bëgg fee defar jumaa ju nii loolu sas bu rëy rëy rëy ba arrêté ay laxas yoo xamante ne ni am na ca yoo xamante ni tubaab bi ñoo ko ci dugal ak itam mbooloo mi koy liggéey xay na ñàkk bokk gis-gis ci doxalin weeg yooyu tax na yooyu yëpp am ci ak laxas yi ci tubaab yi dugal ba tax ñu suspendre autorisation bi ñu ko joxoon ci le 4 avril 1927 kon dafa mel ni sëñ tubaab bi muy dem bàyyiwu fi autorisation tabax jumaa parce que suspendre nañ ko yooyu ba jeneen jamono. am na bis tubaab bi dafa woo képp ku sant Mbàkke rek dañ laa woo fii jumaa ji nekk wax nañ ne autorisation bi ñu mayoon sëriñ bi tubaab bi da ko xotti ci seen kanam woon leen ne bu fi kenn tuuti jumaa maanaam nga xam ne annulé na daal autorisation bi waaye bi nga xamee ne dellu nañ ba nag bi tubaab bi waxee kilifa yoo fa nekkoon wax sëñ Moodu waxut benn baat. moom dafa dellu rek këram bi nga xamee ne nag toog na diir la xalaat nag yan pexe lay def ba mën a gisee tubaab bi ak fu mu koy jaar ba mën a am daal moom li sëriñ bi bëggoon mooy autorisation bu ñu tabaxee jumaa tubaab yi ni léegi nañ ko may jumaa ba pare xañ ko ko ñu ni loolu nu ñuy amee ñu ni léegi may gi mooy autorisation lay laaj rek loolu ci ay kayit lañ koy def waaye nañ ko koy xañee mooy dañ koy teg ay conditions yoo xam ne du ko man su ko defee dana dana ko bàyyi te suñ digganteeg moom du yàqu ndax xam nañ njariñam ak efficacité am ci dundin wi fi ku nit ñi teg loolu tubaab yi xam nañ ko te bëgguñoo ñàkk loola. ni ko yàlla yëkkatee dimbalee ko taxaw ko moom it bi mu wutu sëñ bi yàlla ñëw taxawaat taxawaay boobu ci ci ci ci moom ci dox diggam ak lépp luy gàllankoor liggéeyal lu koy gàllankoor ci liggéeyal sëñ bi jàpp ndal ko it mboolem moyens yi koy dimbali ci mu mën a liggéeyal sëñ bi. moo tax tubaab yi ni ko léegi jumaa ji fi nga ko bëgg Touba diggante Touba ak Njaareem yoonu saxaar amu fi te matériel bi koy transporter oto mënu ko yóbbu te bopp mënu ko yenn kon jumaa ji du mën a am te yoonu saxaar amul. tubaab bi tegal ko ci ne it ne ko it awma yaakaar ci ne gouvernement français dina la ci jàppale ci wàllum koom ndax Louga Linguère ak xaay gee ngi new ak ligne yi nga xam ne tubaab bi mi ngi ko doon taxawal ci wàllu chemin de daanaka da ciy door a noppi wala noppeegul mu ne ko nag kon jortu ne Touba ak fi mu nekkoon ci jamono jooja amutoon benn valeur bi maanaam économiquement bu ñu ko dee seet amul yëlla ngir tubaab bi di ko financé ab raay mu jóge njariñ di ñëw Touba ndax booba Touba boo ko dee seet li fi nekk ci kër mu tut fukki kër dëkk bu mu tut fukki kër nag tubaab bi dafa fa yóbbu ab raay aw yoon di jar su ab raay di jar wow fii rek moo njëkk a yéeme ne ko bu ko alal di def wala ay di ko def dana manu wax ma ñaata man bi nga doon wax léegi mën naa ne waaye ci ay conditions lay nekk parce que wax nañ ne yoonu saxaar yi ñu waroon na tëral Sénégal moom taxawal tan taxawal nañ ko ba pare léegi libéré pour commercialiser ko dong moo des léegi nag nit ouvri yi ñoroon dem nañ Madagascar léegi su fekkee mën nga am ay ouvrier benn la ci ouvrier yi yaa leen di dundal loolu ci sart yi la mbooloo mi ngi fi dajale suñ fi yàq yi fi jàmbur ba yoon di leen topp ci yow lañ leen di att ndax yaa leen fi dajale yooyu benn la ci fi yoonu saxaar gi jaar suuf si moomoo ko daa jaar ci tool yi jàmbur su fekkee seen borom mënta muñ yaa leen di dédommage mu ni leen yooyu d'accord ñu jox koy ab nombre ab distance boo xam ne ñu ko ci sept ans ci lay bi di déroulé léegi su fekkente ne ni wees na ko loo ci defoon da ngay ñàkk parce que dañoo am leneen lu ñuy def lii dong du suñu mu ni leen nangu naa bam ñëwee wax ni tubaab yi di dañoo xamut waaye buñ ma waxoon ne ma da ngay solo ji soldaar door a am yoonu saxaar ma solo ji soldaar ndax lëggéeyub suñ tubaab yi jaral na ma. sëñ Modou li ko tubaab bi tëral li ci ay condition bu ko méngalee ak li sëriñ bi bëgg te sant ko ko li tubaab bi tëral ci condition day tuuti lool da lu tuuti ci li mu bëgg moom day mel ne yow mu ñu wax ne boo jéggee bant bi ñu tëral te bant bi matut 2 centimètres boo ko jéggee ak sa tànk rek. ñu jox la un milliard maanaam yow jéggi bant bi noonu la ko sëñ Modou Moussa gisee maanaam rëyut ci moom ndax li mu bëgg moo rëy maanaam li mu bëgg liggéeyal sëriñ bi ak yitte ji sëriñ bi amoon jumaa ji tax na condition yooyu yëpp dafa wone daf ko dafa wone na nangu na ko waaw mag ñi wax ne ne kër commanda la jóge jógoo naa ak moom ci yoonu saxaar gi léegi junni nit lañ may laaj ak juróomi téeméer ma bëgg léegi kenn ku ci nekk seet num nu ciy def sëñ Basiiru jox ko ci ab xalaat ni léegi dañoo bëgg seex si aju ci yoon wi ak waa kenn ku ne joxe juróomi nit loolu buñ ko defee lim bi dana mat bi loolu amee situation boobu amee nag léegi Cheikh Ibrahima Fall daal di joxe juróom-ñaar téeméeri nit ci junni nit yi ak juróomi téeméer te sëñ Modou nee na bëggoon naa joxe lépp waaye maa ko ne léegi yëpp sëñ Tuubaa kenn du ko akimoo sëñ Mandumbe joxe téeméer sëñ am satulo bu nga bu joxe téeméer juróom benn téeméer yee ca des sëñ Moussa joxe talibem ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñoom ak sëñ Massamba ñoo joxe seen taal bi lim yi ci ñii la génn loola di juróom junni nit ak juróomi téeméer. waaye tubaab bi it xamal ko ne ko euh, dëgg la sax nag euh, boo nangoo loolu ba noppi nit ñi jël ñuy liggéey du ñu doon ay nit ñoo xam ne dañoo yooy wala ñuy lekk-lekk gu bon ndax liggéeyub xeer ak feer dafa laaj nit koy def am doole kon li ñuy lekk day laaj mu am yàpp du doon ay xeeti ñam yi nga xam ne nit ki koy jëfandikoo du am doole day am yàpp. ak yu demee noonu dañ leen di fay itam du nangu nga ne ñi samay taalibe di leen jël di leen exploité ay nit la ñuy doon yoo xam ne dañ leen di pointé di leen fay. sëñ moo itam ubbilu woon ab lis boo xamante ne ni Ibra Fall moom moo ko doon bind ànd ak Fall Maajoor mii doon leen jàppale ak ku ñuy wax Cheikh Kane di taalibe sëñ sàmba bañ ko bindee ba pare jox sëñ Modou liste ba sëñ Modou neen bind mi ni rafet na waaye man bindum càmmoñ daa cee xamut lu bari léegi da ngeen koy téye ba tubaab bi ñëw. ñu xaaj leen nag ay groupe groupe yoo xam ne par quarante cinq personnes la ñuy xaaj quarante cinq personnes yi cinq personnes yi ab euh, chef de groupe lay am akub convoyeur akub tosigné akub gardien ñooñu lañuy lay lay lay lay am quarante yi ci des yor pic ak peel léegi par juróomi groupe yu ne dañ leen di wutal benn surveillant léegi après ñu am benn surveillant général surveillant général bi ku ñu wax moo Modou Guèye l'accident assistant chef la woon France la ne woon jeunes yi moom moo doon surveillant général bi. ci loolu la ñu tàmbalee raay bi waaye tubaab bi itam wax ko ne ko dañ laa tëralal maanaam daal juróom-benn at lañ la may yoo xam ne bu fekkee ne liggéey bi àggu fi kon contrat bi dañ koy dañ koy dañ koy résilier maanaam dañ dootuñu ko nangu yàlla dogal nag murid yi liggéey nañ ko ci ñaari at ak genn wàll wala lu ko jege ci la murid yi liggéey raay bi ñaari at ak genn wàll wala lu ko jege. liggéeyub saxaar gi tàmbali ci le 11 novembre 1928 moom lañ tàmbali ci ci njaareem te loolu itam wax nañ sëñ Modou mooy moom lañ jox as appel mu tàmbali ni ndax yoonu saxaar gi dañoo gas njaareem ba Touba dañ koo gas ba pare door a commencé teg moo tax léeg-léeg nga dégg mu yi daanu kat naa ci juróom-ñaari weer lañ ko liggéey waaye loolu mënta ne gas bi donc fukki weer ak juróom la ay gas te yoonu saxaar daa bokkut ak tëli day am foo xam ne buñ fa àggee dañ koy sëkk ndax bu dee aw xura dañ koy sëkk ba maase bu dee aw tund dañ koy lelli <laughs> loolu ndax point zéro lay départ loolu moo tax dañ doon dañoo gas ba pare biñ ñu agsee kilomètre vingt la ñuy wax ne si Ibra Fall ñëw na ci liggéey ba ñëw na fa seet si leen liggéey ba di continuer di dox ba ci la 14 février 1931 la liggéey bi jeex 14 février 1931 liggéey bi lépp liggéey technique bi lépp jeex nga xamante ne ni saxaar mën na cee daw nga am na benn guddi sax fii ci këru Daaru Xudoos gi mu Moussa di séddale reer tombaloo bu ndaw bi nga xam ne mooy sotti xeer yi dëgëral yoon saxaar yi kalak ci gaar bi mu laaj loolu yëngu lu mu doon ku ñu wax sëñ Boubacar Guèye dëkk Màkk Bara Guèye moo ko ni ah loolu di saxaar gu ndaw gi dëgëral yoonu saxaar yi sotti xeer yu ndaw yi moom la mais sëñ Moussa dañuy ndaxte yàlla dee suma jàpp ba di ma suul looy pax donc nga xam ne ay privé ñoo gas chemin de fer Diourbel Touba ba doon seen histoire chemin de fer def na loolu li ñu koy dégg bëriwut waaw euh, chemin de fer bu ay privé gas waxuma nag ay religieux religion boo xam ne boobu état ba leen di diriger état laïque la di France di état colonial boole ci amuñu indépendance loolu rek bu ci yemoon doy na ko ndam. noonu la def ba defar raay bi ba mu àgg ñu mën cee teg matériel bi di ko indi mu ànd ak rakkam yi ak seex yi ak mboolem yoonu murit di ko liggéey ba mu egsi fii mu egsi mu bàyyi ko rakkam ji tedd ji Cheikh Mouhamadul Fadil Cheikh Moustapha ginnaaw bi mu wutoo Cheikhul Xadim te dib xalifaam bu njëkk ci la façon yéene àggale naal yi nga xam ne moom la ko fi Cheikhul Xadim loon te ba ca ëppoon solo te gënoon a ñor sëriñ bi mooy jumaay Touba mu bàyyee ko ko ci jamono ju jafe waaye Cheikh Mouhamadul Moustapha wane na ci ak njàmbaar gu ànd ak firi wu rëy ak ug dogu ba taxawal liggéey bi. ngir matal naal bu rëy boobu di jumaay Touba ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha sooboo liggéeyub chemin de fer mooy raay bi nga xam ne moo jógee njaareem jëm Touba muy naal boo xam ne kenn mësu ko gis ci adduna te ñu bari jàppoon nañ ne mën la nekk waaye Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu borom dimbale ko mooy ko am ngëm tey jàmbaar te yàlla boole ko taalibe bi am pas-pas lool bañ matal liggéeyu raay bi. jumaa ji bi ñu koy def ay jafe-jafe ko jiitu te booba jamono yi neexul waaye gis nga ni mu jëlee taalibe Serigne Touba ànd ak ñoom jëlee raay bi njëriñ ba indi ko Touba te booba Touba bi gàllankoor la bëggoon pour jumaa ji bañ a am te loolu jàppoon nañ ni kenn mënu ko ci àddina ñu xam leen ni matériel yi dikk ci Touba il faut saxaar gi di ak si Touba mu door a mën saxaar gi njëriñ la mën a yam mu dëgërloo suñ Touba xam ni taalibe Serigne Touba yi la ci Cheikh Abdou Lahad waxoon ne xol yu nangu ñoo gën lu ne mu liggéey loo taalibe Serigne Touba yi ba ku ne xam na ne diggante bi mu yore liggéey bi diggante jafe-jafe yu métti la ndax deuxième guerre mondiale ci diggante boobu la la la la am crise bi usines yi tëj alal ji sànku nit kenn amatul dara ñëpp nekk ci ay jafe-jafe diggante boobu ci la wutu sëñ bi loolu ku ne xam na ne nga bëgg cee song ay liggéey yu toll noonu faaw dana métti. ci 1932 ci Korigor rek. la sëñ Modou daal di woote wax mag ñëpp ñu leen ñu waral si Touba muy ñaari fan yu kor mooy ñaari fan yi nga xam ne waa Daaru Xudus dañ koy célébrer waxtu ci ne di ko fàttali koo ñaari fan yooyu ba mu wootee ba mu ñëpp ñëw daf leen wax ne leen liggéey sëñ Touba bi ci la bëgg a dëgmal muy jumaa ji ni leen yëguma laay bañ lépp lu ma am danaa ko ci def te lu ma waaye jox dana la ko dëgmal naa ko tuddeetuma dellu gannaaw booba nag la daal di tàmbali ci liggéey bi daal di wax sëñ Fallou ak sëñ Massamba ngir ñu dem ca carrière ba ndax ca tàmbali ba ca jamonoy maam Thierno bañ ko ñoom ñaar ñoo ca ñoo ca demoon bi sëñ Modou Moussa yëkkatiwaatee cam ñoo demoon moo tax sëñ Fall daan wax ni doj wu njëkk woo mën a wu mujj wi a sëñ Modou daal di soññi njaboot gi nag ngir tàmbali tàmbali liggéey bi. kere bi nga xamee ne jóge ni fii Darou Khoudoss ñu war a natt jumaa ji xam ngeen ne sëriñ bi bi mu fii ne joxe woon na ndigal ngir ñu tegu xeer ndax moom mu nga woon jaaree mënta ñëw. waaye xeer wa ñu jëli woon ndokk te yët ko ko te mu léemu te mu léemu woon ci dañ cee tegoon xeer fii tolloog jullikaay yët bi diggante jullikaay yi bi ak barabu soxna may mu dutu foofu la ñu tegoon xeer wi bi nga xamee ne nag sëriñ bi jóge na fi te sëriñ bi daa waxoon ni fii ñu ko denc nañ ko fi denc ñu daal di aménagé fii jumaa ji ne ndax fi jumaa ji ne kër la woon sëñ Tuubaa tëdd ci am penc ci biir këram la tëdd dañu ubbi kees denc ko ci biir bi sëñ Moodu soxlaa barab boobu nag lañ dindi néeg ya toxal kër ga loolu moom moo moo moo mooy li am waaye sëñ bi tëdd ci am pénc fi mu tëdd ci biir kër la boo ko daan soxla da ngay ñëw ñu ubbil la kees nga door a mën a ziyaar léegi nag bi sëñ Modou soxla foofu nag lañ dindi kër gi aménagé suuf si pour def fi jumaa ji kere bi nga xamee ne jóge na Daaru Xudus ab yor-yor dugg ci benn Citroën bu verte ñëw ba fii ci péncum jumaa ji mu gaare wax safar bi ne ko demal jëli sëriñ Mbàkke Buso ak waa këram chauffeur bi dem gede ñu tegal sëñ Moodu ab chaise mu toog ci benn chaise rek mu toog ci ñu jëli sëñ Mbàkke bu sa gede bi mu bi sëñ Mbàkke bu sa ak sa oto bi wàcc moom moo gàttandu sëñ bu sa teg ko ci chaise bi ndax sëñ Mbàkke bu sa boobu jëblu jëb na ak mag mu ànd ak ay doomam sëñ Moodu bu sa ñoom ak ñooñu ñëwee sëñ Moodu wax ko ànd ak sëñ Moodu ñu dox ba ca kanam Ibra Fall Madior bi moo koy nett dani ma lañ waxtaani moo ko sëñ Moodu ku la ko nettali te jëliwu ko sëñ Moodu waxul dëgg ndax waxtaani wuñ ci biir mbooloo ma daal ñëw na sëñ moodu di ko ci chaise bi mu toog ginnaaw bi mook sëñ Modou ñu ànd di ànd di dox tuuti di dox di waxtaan di dox di waxtaan ba mu yàgg sëñ Mbàkke yëkkati ay loxoom daal di wàcc sëñ Modou laaj xamtu moo ne ma man nag li may wax sëñ Modou moo ko wax ne sëñ Modou ma wax ni ma sëñ Mbàkke de bañ taxawee daf ma wax ni ma jumaa ji lu teewoon ñu xiblaal ko fee mu ne woon fañ ko jëkkoon a xiblaal tàmbali ko fa lu tee ñu delloo ko fa ne ma ni ko man de dëkk bu sëñ Tuubaa ne dama ca mënta julli di woon gannaaw ndax buñ ko xiblaaloon foofu bu ñu julli dañuy woon sëñ bi gannaaw ndax jumaa ji ca kanam la mais sëñ moo doon wax moo wax lool ni ko dëkk bu sëñ Tuubaa ne dama ca mënta julli ci won ginnaaw te dama defen imaam da jiitu waaye du des ginnaaw nee sëñ Mbàkke ni ku moo dund ak yow mi xam li yaa war di jiite moo tax ñu ñu ñu andi jumaa ji rëkkili ko bootal ko sëñ moo tax ñi wax naan jumaa ji armée la dañoo xamul dara ndax jumaa moom ci minbar lay tàmbalee jëm sow te barab baa ngi ca kanamu minbar ne wut ci biir jumaa looloo doon ab liggéey boo xamante ni boobu la ko sëñ Moussa daal di tàmbali Cheikh Moustapha dafa signé woon contrat diggam ak tëlër bi ci liggéey jumaay Tuubaa ji te la dem France bàyyi liggéey bi liggéeyatu ko deful dara ba noppi dikku mu yàgg ba yàggaay ba jéggi de Cheikh Moustapha signé waat beneen contrat te port porte ko plainte ci contrat bu njëkk bi ñu signé woon muy tribunal boo xam ne kenn xamul fu muy yem te boobu tubaab yee fi ne biñ leen woo bu ñu demee ñu atte renvoyé ba beneen yoon ñu woowaat di ko def di ko def ba taalibe yi sax dañ daan ñaan yàlla na diggante sëñ Cheikh Mourou Moussa tëlëri jeex seen bu mujj nag ci Kaolack jii la keroog ba fa Cheikh Moussa bañ ko convoqué ba Cheikh Moussa dem góor gi ma surang la àndal ak sëñ Mourou Moussa Fall ak geneen kilifa goo xam ne nag du ma ko tudd ñoom ñett bi ñaandee dem ci ci kaw lax jiite sëñ Abdou ma ko nettali muy le 4 mars 1932 ndax xiblaal ga dañoo dagg bépp ga door a xiblaal jumaa ja door a commencé gas fondation bi waaye sëñ Mourou dañoo gas bi ba pare mu door a teg xeer bi muy teg xeer wi ci biiri pax la dugg door a teg xeer loolu la 25 mars le 1932. bañ ñëwee Cheikh Moustapha ne bi Cheikh Moustapha agsi ci tribunal bi kaalam la dindi bi mu dindee kaala gi sëñ Mourou Moustapha Fall daay yóbbu mu agsi ci biir bi bureau bi góor gi ma sonal la àndal ak kilifa googu ma lay wax. ba mu taxawee ñu ne ko ñaari baat lañ la laaj danaa fay am du ma fay képp lañ la laaj amul amul leneen lañ la laaj mu xàcc loxoom su ma nguurug français dee daan nañ ma wax ñu ne ko nag mën ngaa dem loo dégg mu yëngu rek ñun la ñu génn bañ génne kilifa ga am kilifa gën gu ni ko mënu fayal tubaab baaxul fi ñu jaar suñ tubaab kat te nga si te da ngaa déggul tubaab waaye boo déggul tubaab ba dégg la la koo ko doon wax nga xam ne ñu ngi fa bu jëm si ci yow mu ne ko yow de umpale nga sëñ tubaab waaye laa xamoo ay daan day moo daa tax góor a jël ñaari tànkam dër ko ci suuf te su ma dëree sama benn tànk te kama daan far far ma bu nguuru français gépp dajaloo woon bëgg koo yëngal duñ ca man dara te lii sama ñaari tànk nag laa ci dër guerre déclarée France tëlal lu ñu ko deq rek li doon suñu Moussa jax tak loolu Cheikh Moussa Moussa def na ko fii ci <coughs> ci dëkk ci ci Touba gi may waxee ak yéen. 39 45 euh, euh, guerre mondiale dafa déclaré adduna sëpp nekk ci fitna sëñ Maodo ne nañ arrêté liggéey bi. 39 ñu arrêté liggéey bi ngir ne doo dëkk am ay dëkkandoo waxuma sax ay jullit ay dëkkandoo ñu nekk ci fitna ju toll nii ngay liggéey moo tax mu arrêté liggéey bi waaye diggante 39 ak 45 su fekkoon ne liggéey bi dafa wéy sëñ Modou bu fi jógee day immigré jumaa ji. liggéey bi jumaa ji noonu la continuer di di dox bu ñu delluwaatee ci histoire dañu gis ni liggéey bi sori na trop bi muy dem ndax sëñ Moussa Ka wax ni Cheikh Moussa fond mag jumaa ji ba mu weesu xaaj mu bàyyi koog alhaaji demaat na ñu tabax na bay tàmbali ay fenêtre ca wet ga féete gànnaar daal di gedd ay xeer wax nañu bi bi muy dem xëy këlub jumaa ji jëmmi jumaa ji ci boppam waaw waaw pare na jëmmi jumaa ci boppam poto yi ci biir ak miir bi ko encadré butt yi yooyu yëpp loo loolu pare na bañ commencé woon kuule kuulaas bi nga xam ne dong yi daanañ yéeg ci kaw di ci daw loolu loolu pare pare pare woon na nga xam ne wax nañu barabu sëñ Tuubaa bi boobu moom la tàmbali waaye couverture bi ko war a bi war a wër ëmbaali barabu sëñ bi boobu yëkkati nañ ko ba mat moo tax mu ni Cheikh Moussa tabax kenoy jumaa ji yar ne fa baayam mu bàyyi kook alhaji yar ne ci barabu sëñ tubaab yooyu sëñ Fall moo ko jël barabu sëñ tubaab yi ci liggéeyub sëñ Fall ak daara kamil yi loolu ci liggéeyub sëñ Fall soorool yi itam ci liggéeyub Cheikh Mouhamadou Fall sëñ Modou bi muy dem ay soorool amagul xubba amagul yooyu yëpp ci ci liggéey liggéeyub Cheikh Mouhamadou Fadel la liggéey bi nga xam ne it moom la yoroon moom sëñ Modou Moustapha bi mu fi bi ko fi sëñ Tuubaa bàyyee murit yëpp jaayante ak moom bi mu fiy jógee it yëkkati na ko ci anam gu rafet teg ko ci loxo yi sëñ Fallu ba mu nekk fi ginnaawam lu ëpp ñaar fukki at lépp loo xam ne àndoon nañ tàmbali woon ko yéene ko ñoo ko àndoon ba sëñ bi Modou Moustapha di wàcc batale ko ko teg ko ci loxoom lu ca bari àgge ci loxoom lañ bokkoon yéene it lam ca man mu def ko ba ni ko fi yàlla jëlee moom itam lislaam ji bég na ci moom mu jiite góor ak jigéen ñuy bég fa yàlla jumaa ji am na ci ndam Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawu ay rakkam taxawaay ba war kenn ku ne ci ñoom mu wuutu sa jur ci yow fonkoon leen lool doonoon seen baay di seen mag te defoon leen sëriñ ngir daan xeeñc ci ñoom sëriñ bu mag bi ak di ci sàkku ngërëmam kenn ku ne ci ñoom mu taxaw la ba nga mottali sam njàng sampal la kër di la jàppale ci sa mbiri àdduna ba tax na ñoom ñépp kenn ku ci nekk jox nga ko cër bu rëy jox nga ko cër bu ràññee ko lool ci fonk ko lool ak bëgg ko yaa am gëneel ak i may aw fit ak tabi ànd ak ngor fa yàlla. ñëpp ay kiraam kiraam sëñ bi la ñu waaye man sax njëkk fi ñu kiraam ak ndax ak matam ci wàll yépp biir biti xam-xam bi ma waxuma ko dafa jàng li li mu war a jàng lépp bokk ci xoolamaa yi doora nag. Euh, door euh, teg ca xam sëriñ bi xam ku mat sëkk. biñ ko wuutoo itam lee naar ba waxoon ne asayxu mubtadaun man dama koy jël ne moom ne wal Moustapha xabaru maanaam nga xam ne naar bi xabar lu ko defoo bi ko fi bi ko sëñ bi wanee ginnaaw man dama koy jël def ko li ñuy wax badal ci ci ci naxaw badal dañuy wax ne ñu ñu ci wolof dangay ngay mën a loo koy xamee da ngay mën a dindi lam badal wutal ko fa te wax ju du yàqu. sëñ bii dem moom moom moo ci doon mag Cheikh Mouhamadul Fadel Cheikh Mouhamadul Lamine Cheikh Mouhamadul Basir ginnaaw ñooñu sëñ Abdou Borom dër bi moo ciy mag te ñaar fukki at la bi sëñ bii dem sëñ Abdou Lahat ci doon mag fukki at ak ñeent la te moo magaan ñi ci des kon ay njaboot lañ yoo xamante ni daf leen a waroon a taxawoo ci si mottali seen àll ak seenu biar te loola adduna suñ borom jox na ko ci ndam ndax ñu bari dañ naan doomi sëñ Tuubaa yëpp a yem kon ki leen doon yar yàqu leen. nañ ne xasida bi boobu kan xaqan ba ko sëñ bi tarloo ba ñu àgg foofu na ko ba ñu àggee foofu sëñ sëñ sëñ bi jàpp na ci sama ñaari bopp mag Cheikh Moustapha déeñu loo xam ne duñ ko nett li mu ko ba ilaa yawmi diin kon loolu lu lu mu leen boole la. Euh, digg mag euh, Cheikh Ahmadou Bachir itam euh, dama ko yëg a yëg yëg ba nga xam ne eh, bindu ma sax waaye li may bind di bind di bind na seen diggante am na bind bu ci def ngir mënuma koo muñ ndax bëgg ñu xam eh, seen diggante damay wax ne ñaari gor yu àndoon lañu ñoo xam ne itam ñoo bokk pëstéef bokk ndigal biñ bokkee Pastef bokk ndigal ba noppi nag dañ doon ñaari góor yu ànd loolu laa ci xam. <laughs> waa këram yi xam nga Cheikh Mouhamadou Moussa Fadel mi ko jëkk a wute Cheikh Mouhamadou Moussa la wax na ma ne ba ma koy tuddi tàgguwu ko pour nga xam ñoom ñaar sañ-sañ yi amoon seen diggante nga xam ne dafa ñëw fekk Cheikh Mouhamadou Moussa Fadel feeñ ci nit ñi sëñ sëñ Mouhamadou Moussa ñëw tudde ko boppam sëñ Fallou ñëw bég ca lool waaw ndax ndax bu noppi jébaloon ko ko xam ngeen ko xamee mu yar bi tarbiya ko tasfiya ko waaye gis gis ngeen ni ko yàlla melal yii dox diggante nit ak ñut ñu ne diggante bi rafet na yëpp dox na seen diggante ndax wolof dana rafetale digganteem ak mbokkam tudde ko doom dana ko rafetale bañ ko koo tudde waaye jox ko ko ñaar yëpp dox na seen diggante boole ko defoon ko kilifaam bi fi Sëriñ waa nekkee ak bi fi Serigne Touba jógee. mu taxawu njabootu Serigne Touba gi ñëpp nag te kenn desu ci jàngal leen ñi nga xam ni ci ndaw lañ fekkee yar leen def leen ni nawle itam nag teg ci li ñuy doon doone ndaw mu def leen ni nawle taxawu leen laa Abdoulaye mi ngi wax tey kàbb gi moo ko jox ba koy jox kàbb dafa dafa bind leetar yéene ko sëñ kàbb bala yaa si ne ko seenum sëñ Touba ñoom bu bu ko dara rombati di jëm si ci man Daaru Salaam bukki barga gii moo ko sancaloon boppam jël ko jox Cheikh Abdou Lahad dem coon jógeeti coon sanc tay jiite gaalool yi jóge coon gaalool la ca teg sanc tay dëkkam bii nga xam ne fa la Sëriñ Moussa bari woon na fa ay tànk lool diggante mag njaareem muy Taif ba mu koy sanc Sëriñ Fallu la wax mu jox ko awtur mooy yaa Taifan joojee Taifan yow miy wër Euh, foo xam ne bu sa bët xonqee sam xel dal fa daj fa ba tax nga di ko wër ñëwal taayif sa aajo faju koo xam ne it amul lu sol waxuma la mbubb waaye ay dàll day fàndaañu fu mu jëmit fàndaañu may ko sol ay dàll soo ñëwee taayif da danga solu boo xiifee it tey wër foo mosloo it boo ñëwee danga lekk danga nga naan ba màndi waaye boo amee yooyu yëpp it tey loo diisa la si jiba it boo ñëwee Taif da nga fi fekk koo xam ne ab tab la ko mu jox doo jeexam loolu moo tënk bayit yooyu waaye li mu nekkal Serigne Touba itam mbooleem rakkam yëpp kenn ku ne jox na la ci boppam loo xam ne defa nga ne Serigne Modou Moustapha yow rek la ko jox mu muy Serigne Bassirou defa ko premier conseiller am nga xam ne lu muy dugg dana ko ci laaj xalaat ci xelam mu rafet mu xelal ko ca fu mu demit ànd ak moom doon wéttalam fu ñu ko gisee gis ko gis ko bu ñu ko mos a woon ndar moom lay entraînement ànd ak moom. sëñ Fallou itam mu jàppee comme sëñ Tuubaa fonk ko fonk goo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ba ci xam ngeen yoonu mii ñu ñëwee woon Taïf te ñoom ñëpp ñu daje fa waa kër sëriñ bépp te mun ne sëñ Fallou tey yaa fi samam sëñ Tuubaa faaw yaay jiite sëñ Fallou ne ko man itam yow laay xoole sëñ Tuubaa ñëwuma laa jiite mu ne ko dama la cee jox ndigal faaw nga jiite sëñ Fall ne ko danaa ko def day ngir ndigal li waaye bala ma koo def dafa am lu ma la ci gàll boo ko nangoo rek ma def ko mu ne ko lumu mu ne ko sama julli gii may bëgg a julli ku ma ci jiite nañ la jéggal ko ci àndit koo jiiteeti nañ la jéggal mu ne ko nangu naa ko sëñ Fall door a kabbar sëñ Abdul Xaadir mu baax mi daana wax ne yàlla def na julli googe ci laa àndoon <laughs> gis nga ñoom niñ fonkante ak niñ gëmante te waroon ba ji ma amoon ci njabootu sëñ Tuubaa gi soxna Maymuna radiyallahu anha bi digg naa ci làmmiñam mu nettali ne ñoom bi ñu demee ba gën a xàmmi lañ xam ne Cheikh Moussa seen mag la da daan wax ne seen talibe Baay laa seen talibe Baay laa ci daay bi ñu demee seen at yokku lañ gën a xam ne kii kenn nekk day ni di taal bi waaye eh, seen mag la am na ko mu nett ni Cheikh Moussa daana wax ne lii catam gi Sëñ Tuubaa mooy li mu ko jur xam nga koo xam ne Sëñ Tuubaa jur nga xam ne ñun dong yi buñ ko mën a am ko siiwee <laughs> moom fa mu fi àgg la mu ko defal waaye mu ne li ciy catam mooy li mu ko jur ndax na mu ko bëggoon a jàppee mu ko bëggoon a tarab ragal ne bu ko defee dañu ne ah xanaa li muy bàyyee ma tax waaye ñoom ko jàppee ñu ko seen bàyyi ba tax na noonu mu fonki sëñ Fallu noonu la fonke woon njabootu sëñ Tuubaa gépp gépp gépp gépp Cheikh Abdoulahi borom dër bi ñëw na fa génn guddi ci Taif fekk nawet bi toll foo xam ne dafa gëj a taw lool naka mu nuyu ko rek mu ree ne ko borom ndox mi ñëw na kon de suñu maral bi jeex na Abdou di bu bët seet mukk tëtawul siib nee na ma jaaxle lool waaye ah, yàlla nee na yàlla suturaal ma ba guddi gi laataa xaaj rek ma jékki-jékki dënn dënn yu métti ma gis mu xiin rek sotti taw a taw a taw ba kër gi fes ten ten ten bi ma xëyee ci fajar bi mu sëlmale rek neen mën lañ jëkk a jox loxo dama xamoon naa ne borom ndox mi taw bi daal di ñëw kon noonu la jàppee woon ay rakam ku ci ne ku ci ne mu jox la cër boo xam ne yow da ngay defe ne yow rek la ko jox bi mu demee ba am ay jafe-jafe ci liggéeyu jumaa ji mm, ñëw na Daaru Muxti yoon woo xam ne tarixa murit bi yëpp la àndal maam Thierno mu daarul maanaan dana ma koy faral di nettali nee na bi mu agsee ci pénc mi nee na pénc mi dafa fees dell ak ay fas boobu nga dégg bruit yi coow yi ndax boobu cheikh yëpp la mobiliser ñu ñëw daarul moxti ci borom daarul moxti waxtaan ak moom la waxtaan ak moom mu tontu ko lam ko tontu loola lépp li muy wund rek mooy ni mu amee woon diggante yu rafet ci ñi nga xam ne ñooy ay waajuram muy waa doomi sëñ Maodo Anta Sali ak ay rakkam mooy waa sëñ tubaay yi doomi sëñ Tuubaa yi ak magi taalibe yi nga xam ne mobilisé na leen ànd ak ñoom ñëw ko keroog sëñ. sëñ Massamba nag doon nañ koo xam ne nii fa ñu ànd dafa yàgg ndax ni ma ko waxee rek loolu jarul li ci leeralaat <coughs> maanaam ñoo bokk mel ne maam. ndax Binta Fall mii way juru sa sa sa eh, tas si Maxtaar Binta ak Xujja Kumba Fall mii way juru Mor Xujja Kumba ñoo bokk ndey ak baay te Mor Xujja Kumba moo jur way juru suñu Masamba bu jigéen kon Cheikh Moustapha ak suñu Masamba fa ñu bokkee jotay yi démb la waaye ginnaaw sëriñ bi nag suñu Masamba ànd ak moom di ko xoole sëriñ bi taxaw ko taxawaay boo xam ne nii Euh, maanaam maanaam maanaam amul benn taxawaay boo ko mën a nural la daanaa waxit ni lu ma def ci Abdou Lahad rek xeeb ko ndax ni ma def ndax nam ko def mooy bi fi sëñ Touba jógee mu doon wàllam ci merasum sëñ Touba dafa jël wàll ba mu am ci merasum sëñ Touba dem jox ko Cheikh Moussa tëddee sëriñ Touba yaa ngi may dégg jël léppam nag jox ko ko tëddi sa du ca dara loolaa tax sëñ Mourou Moussa defoon ko noo xam ne nag sore woon na ci moom jàppeel gu wér goo xam ni seen diggante eh, ay ay ay baree baree taxoon. waaye kenn ku ne xam nañu bi ñu yoree yoon wi ak bi ko mag ñu yoree amut différence ci aw doxalin loola nag dañuy xam ni kon ab yaram ni ko sëñ bi yare woon rek noonu la yare noonu la yare njaboot gi. noonu itam la doon masla ak ñooñ àdduna nga xamante ne ni tubaab yi jamono yi leen fekk mujj na lu lëj ci Sénégal ci wàllu diine moom moom la ñuy dem garab bu mag bi amoon ci semaine de fer bi ci tubaab yi jaaxle moom lañ ñëw ci moom moo ko réglé. bi nga xamante ne nii bali Dakar yi soqi na moom ñëw nañ ci moom am na ci ay taxawaay ba am solo yoo xamante ne nii def na ko ci ñaare bu jullit ñi amee problème yuñ fi ci tëjee jàkka yi Kaolack ji moom lañ woo moo doon médiateur bi moo ci dox ba jàmm amaat mu laaj ndax tubaab bi saa yu ñu tëjee jàkk rek moom la indi indil bi waaw nga xam ne sax am na ci at moo xamante ni ministre de la colonie ne dafay ñëw ci 1943 ni ko tey yaa ma tax a jóg nguurug France ma yebal sant si la rek moo nu tax a jóg ci taxawaay yu rafet yi nga xamante ni yaa ngi koy taxaw ci réew mi léegi baatub kun suñu borom jox na ma ko sama garaade bi moo ma ko may dama bëgg a wax léegi Afrique mboolem ñi fi yëngu ci lislaam nga doon seen kilifa te moo leen ko waxee danañ ko def sëñ Modou ni ko li wax dëgg la ñaar rek la bëgg ngeen bàyyee ma li ci des lépp bàyyee naa leen ko mu yoonu jàkk ak yoonu tool yi li ci des lépp bàyyee naa leen ko loola ab defarkat la boo xam ne adduna mosu koo ñor. loolu daal bokk na ci injaasaat injaasaat nag euh, mooy yi nga xam daa sottee ci sa loxo waaye lu sottee ci sa loxo it euh, mooy da ngay fekk kenn keneen tàmbali woon ko waaye man ngaa tàmbali it keneen àggale ko yooyu yim ci def kenn xamu nu mu toll bokk na ci taxawu njabaru sëriñ bi ci boppam ña war a jàng mu jàngal leen. ñañ ca war a wutal ay warab ñuy gën a yaatal liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi mu wutal leen ko ñam ca war a taxaw it ci ay anam yu wuute wuute mu taxawu leen ca ba defar aw nit ba ngi taxaw ba dëgër ba tasaare fu mu mën a jëm liggéeyub sëriñ bi ba boo leen gisee doo xàmmee ñoom ñi sëriñ bi yaral boppam jëflante bi moom mënoo ko ci xàmmee te lu ci baree bari jaar na ci loxoom muy ñii nga xam ne dañoo gën a àdduna ci nekkuk Sëriñ Tuubaa njaareem Euh, la ca dolli ko it mooy sëmb yi nga xam ne sëriñ bi daf ko batale woon bi mu fiy jóge muy defal ko ci dëkk bi jullikaayam bu mag bi nga xam ne ba fi mu ne diina jëpp dañ koy damoo loolu ci ay loxoom la tàmbalee ak jafe-jafe yu metti ndax jamono neexe wutoon nii mu neexe ba soo ne indi leen rek ñu ne am rawatina it adduna bi ci boppam xat ndax xat-xatu àdduna bi moo doonoon jóge nañ ci ab guerre bu yàggut 14 18 jóge ci ab crise bu mag ay 1920 21 dellu jógewaat ci béy goo xam ne euh, yëkkatikatu fitna béy na ko ba àdduna bi dugg ci guerre bu mettiwaat di ko tàmbalee 1939 fi la ko fekk ba 1945 bi mu ci bàyyi ko guerre bi bu jeexee it bàyyi na jeexit ci adduna bi joo xam ne sottal dara moom yëmbutoon foofu dal la dajeel muy yii ma jëkkoon a wax muy xam-xam bu leer bu ànd akub yar aw fit gunge ko ak njàmbaar ak xam sa bopp te mooy xam sa responsabilité sab yan. yaraama yow Moustapha yaa ngëneel ak i may. màggalug Daaru Xuddoos bokk ci liggéey yi nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamadul Moustapha bàyyi te mooy bis bi nga xam ne ci la sëriñ bu mag bi ñibbee Touba Cheikh Mouhamadul Moustapha daan ci soññ taalibe yi ngir ñu fonk ko daan leen wax ngeen li ci nekk leeraloon leen nit ñu koy màggale ci jàng alxuraan ak xasida ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ki bernde bis bi mu indee sëriñ bi te sëriñ bi dénkoon ko faaw dana ko woote yéex ko woote nag ndax sëñ bi 27 la dem waaye ci 1936 la sëñ Modou woote daa jële ay donga jëm weli ñu ñëw yeesalaat kër gi mu bind ay bataaxel yónnee ko ci mag ñi fenn fu ci nekk mu yónnee ni leen ashrina muharram laa bëgg ñu daje ci Touba ba mu jub see itam wax nañu laaj na sëñ ma Masamba bàyyi taxam boobu yi nga xamante ni suñ borom a leen déggale seeni at soreewut te yàlla déggale leen bu baax a baax a baax sëñ Masamba itam taxaw taxawaay bu am solo nee na moom la laaj ndax mi ngi fi ñu ni ko daa génn mu ni fu mu jëm ñu ni ko côté njàmbur la jëmoon mu ni nañ ko ko dabal fu ne rek nañ ko wax ni ko soxla na ko ñu ni Louga lañ ko fekk mu wàññi wax nañu keroog bi muy ñëw Touba daa fekk mu guddi ci buntu jumaa ji ci buntu soow bi ak looraa ngi fi woon foofu la fanaan ku ñuy wax sëñ Matar Diop dëkk Kaolack moo ma nettali ne ma maa ñëw ci sëñ Moussa fekk fa Moussa Diop njëkk mu toog ak Baara Amar bëkk nekk nee sëñ Modou laaj ma ni ma ñëlee ca sowub jumaa ji ca sowu bunt ba ñu mu doon nee eh, ma ne ko ma Massamba daa ñëw guddee de taxoon mu fanaan foofu ñu du dem te gisu la mu ne ko demal wool ma ko sëñ Matar Diop nee na maa ko wooy eh, ba ma demee woo ko ànd ak moom mais eh, bi ñëwee mu nuyoog sëñ Modou jàmmante sëñ Modou laaj ko tukki beeg yooyu ñëwee sëñ moodu génne aw kayit ci biir maxto bi yoroon jox ko sëñ ko daal di jël kayi bi daf ko ci dënn joxaat ko sëñ Móot eh, sëñ Móot ni ko loolu de xanaa keroog ba ko sëñ bi bind eh, seere ma koy jox seere nga ko ndax na la ko nga jàng mu jox ma ko ni ma denc ko ba mu jot sëñ ma sàmm ni ko waaw sëñ Móot ko tey jii la du ashrina muharram la ba waram waxoon de mu ni ko mu ni ko at mii mu ni ko sëñ bi moo ma waxoon ni ma buñ àggee ci at mii bis bii nag ma dajaleel sa mbooloo ne daal ni daal ci bisum màggal ga ne ba mu xëyee mu ni nañu wut ab toogu yóbbu ko ci jumaa ja ne foofu tollu xubba bu mag bi foofu lañ teg sées ba mag ñi itam fekk ko ci woote boobee waxtu ci nekk lu koy jëmmal lu koy jëmale kanam njaboot gi ko wutu gannaaw itam taxaw ci taxawaay yu am solo yoo xamante ni bis bi moo tax mu sax ba nëgëni lu baax nag fu mos a jogee gis ni day woote ñenn ñi gis ni bis bi wari su ko woote ñenn ñi gis ni bis bi bisum naqar la gisin yu bëree bëri waaye suñ Moussa moom bañ koy wax ni ko bisum naqar dañu doonut ci suñ Tuubaa suñ Tuubaa moom du bisum naqar ci moom ndax buñ demee ci Muwaahibur Rahmaan ca tarjumaan ji suñ Tuubaa ñaan na boroomam ni ko na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajeek yow nga di ma ci fay muy bis boo xamee ci la liggéey ba mat ci la seytaane noppee daan man dara ci mbiram suñ borom doon ci kaasam te itam bu ñu fàttali bis bi muy woote lam ca façon ko fa fanaan rek yàlla jégal la say bàkkaar loolu la jaar na ñëpp dem ca te damay wax ne Touba comme ni ko waxee ci yaatal gi mu waxoon dañ koy déggee booba kon ci ci ci ne Touba xaal la am na Touba géographiquement limité mooy fee mu nekk ak la ko xaal la boo xam ne boo nekk ci li sëñ Touba bëgg digle ko ak foo mën nekk yaa ngi Touba kon ku xam ne mënoo dem dem Touba moo waaye boobu moom itam ne fa nga nekk nga nekk ci li sëñ bi bëgg nekk ci digli sëñ bi comme booba yaa ngi Touba ndax li suñ doon wax jege te sori yàlla na yàlla ñu jege faaw rek jege tey bokk fu ñu mën nekk rek ñu nekk ñu nekk Touba. sëñ Cheikh taxaw ci taxawaay bu am solo gannaawam ba ci ay discours am sax bind na wax ci ni képp koo xamee ni kañaan muurut sa bëti xol da nga xam ni màggal bisub sëñ Touba bi moo gën a yaayoo màggal beneen bis bu dul moom. kon wax naa ne sëñ Cheikh Moussa ni mu meloon kayam te at yi bëriwul ñu fi jógee soixante cinquante neuf soixante ans te ba ñun ku ci am loolu da ngay ne xale nga mm-hmm. ak li ñu fi def lépp ci temps temps record boobu loolu loolu lu yéeme la lu mata nga xam yonent sallallahu alayhi wasallam at yi mu amoon sax waaye gis nga ni mu feese jamono xam ni ñuy wax ci nit ñi naan moom yàggul jamono waaye gudd na fan yàggul jamono gi sax mooy 58 ans 59 ans xam nga ci sax day ne bëriwul loolu mais gudd na fan ndax turam dootu fay mukk waaw kooku ma yàggul ci jamono waaye gudd na fan tëraay bi nga xamante ni moo ko tëral nga xamee ci la wujjee boromam wax nañu ni sëñ indi na fi ab docteur boo xam ne doon na seet yaram yi waaye daf ko wax ni ko yaram mi dafa tàqali ko dara andut ci ak morom ji ni ko daal bu fekkante ni feebar la ñuy gis dañu ak ñàkk nelaw moo ko jàpp bi yi demee bi ko sëñ Ceex laajee lu ñu wax dañu ko daal mel ni daal feebaru ñàkk nelaw yaram wu jeex tàkk daal mu ni ko diggante bi sëñ bi demee ak léegi day fàttaliku ma fi fu ma fi tëdd ngir bëgg nelaw xëy na ay nelaw mën na ko not nag ndax nature la ci doomu aadama waaye day fàttalikul foo xam ne dafay waaj ba jekk ngir tëdd ngir bëgg a nelaw ndax na ko liñ ma batale ak ñiñ ma battaleel ne law xaju fi liñ ma batale ak ñiñ ma battaleel nga xam ni sëriñ bi rek moo ko yoroon ak yoon wi ci la jeexal ak dundam am nañ ko yàlla fayal na leen ma doo ma xam baay ne ci yoonu murit loo xam ne kenn du ko fàtte mukk ci àdduna muy des di dund ba fàww ndax jeexal gu mu jeexal ak dundam lislaam ak ci liggéeyal borom Tuubaa muy misaal ci ko xam ne la mu jaayante woon ak borom Touba de matal na ko sëkk ba keroog ba mu wuy ji boromam ci atum 1945 ak dundam ñu mën koo misaal rek ci li sunu borom waxoon ne minal muminina rijaalun sadaqu maa ahadullahi alayhi fa minhum man qadaya nahbahu wa minhum man yantadiru wa am na ci way gëm ñi ñoo xam ne la jaayante woon ak sunu borom delluwoon ci ginnaaw mukk am na ñu faatu ca ñoom am nañu fi des di xaar yàlla nañu ko yàlla fayal ci barkeb Sëriñ Tuuba wasalaamu aleykum wa te footal nu ma faasit yi xol yi karaamay desu xarbax ya mu jébbal la malaanam njuril da sangoo yirey ban ma nga rangoo ma ne te baatin bi nga lamboo ma ne fu ko laaj ne leen daama yu xoolam du yo daw di ko raamal roy dundurag fii ne leen daama xooloo bi